waa jeex na. rôle bi nga benn différence booy wax xam. <laughs> non man du ma ni amul différence mais am na tuuti différence parce que genre euh, li ma mel si moom dafa ëpp moom comme ni ko gars di waxee. naa ma boo bu yàggee sa bi léegi mu dem mais n'empêche tamit euh, yar nañu fu ñu ñëw a yore te am nañ kersa tamit respecté nañ suñuy mag respecté nañ suñu ay aînés te loolu moo ñu war ñun en tant que jeune. donc voilà c'est pas dit que noonu laa mel en tant en tant que tel mais par déjà par euh, par rapport ak accoutrement bi yooyu noonu meluma noonu su may génn lu ma neex genre pas lu ma neex laay sol mais samay sama style laay sol quoi bokkul ak li may wane ci série bi donc dafa am ak vie d'acteur ak vie personnelle bokkul quoi donc affaire dañ koy adapté rek ak euh, context bu mu nekk voilà. seen concurrence ak série bi di bété bété lan ngeen koy dundee parce que des fois sax ñu dégg ñu naan euh, bon wax dëgg yàlla man moom loolu du ma si prononcé wu franchement parce que nekk na loo xamante ni ñun ñëpp ay acteurs lañ te ku si nekk da nga am sa idée créer sa série boobu donc mi ngi doxalee ñu ngi doxalee ñëpp a ngi si jàmm man wax dëgg yàlla c'est avec tout le respect que je vous dois man je je vais pas me prononcer là-dessus quoi parce que je suis un, acteur parmi les parmi tant d'autres donc c'est pas à moi de dire sa ceci ou cela donc euh, je m'excuse par rapport à cette question mais je pourrais bu ko yàlla tuddee rek incha allah donc ñun nag comme ni nga ko waxee ñu ñëpp loolu la ñuy ñaan donc bu ko yàlla tuddee rek incha allah dina ko dina am quoi. non du tout pas du tout man maa ngi si leen maa ngi si affaire photographie maa ngi si série bi j'ai une j'ai un restaurant à marché maa ngi si benn kii tamit donc euh, ñu ngi si lépp nekkuñu si benn affaire en fait on tout te lépp lu ñuy def tamit ñu ngi si gisuñu suñu bopp. donc c'est pas dit que nii peut-être euh, Mario nekkatul si photo bi non non mi ngi si ba léegi mi ngi photo ba léegi si mariage mariage laa jóge ñëw fii tey bàyyi fa samay samay élément ñëw fi mariage bi donc kon maa ngi photo ba léegi ñu ngi sant yàlla quoi. merci beaucoup amul benn problème incha allah tawfeex jaajëf bu baax a baax di leen ziar am mbégte kontaante tey nag lañ fi ñëw seet si nga xam ne nii sunu xarit de Mario Zik nga xam gën a xam tamit série Babel boobu mu ngi fi exceptionnel alors. jëloo bu wér <coughs> yàgg na. non bàyyi li ngay wax bàyyi li ngay wax leeruma yow yaa leer mais maa ngi nuyu ñëpp ah maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar. <coughs> Mhm. parce que tey sa frère moom moo xewle daal takk jabar ak yéen kàddu waaw comme ni ngeen ko xamee rek Ousseynou tey <coughs> suñu frère suñu xarit mooy fa tey te yàlla daganal na bis bi donc di ko ñaanal euh, lépp lu mu bëgg si bis bi rek yàlla may ko ko yàlla jubale ak jabaram musal leen si seytaane ak Lamine ak cat lépp. donc di ko féliciter parce que xarit bu baax la te am na jom am na fulla te nangu noo liggéey tamit xam na li mu bëgg ci àdduna donc tey ñun ñëpp lii nañuy ñaan yàlla bés bu rafet xam nga nga fas soxna nekk responsable di gérer say affaire donc si jàmm ak salaam donc en tout cas mu ngi koy féliciter encore une fois. alors seen relation waaw xaritoo je pense que ni Babel <coughs> xamante ne nañ avant Babel mais Babel nañu gën a miinante donc depuis bi ñu commencé ba léegi ñooy ànd. donc dara ñaawul et voilà mi ngi noonu daal. moo lay doon <laughs> conseil célibataire bi <laughs> nga takk nag. waaw waaw waaw imaam ñëpp la ko boox ñëpp la ko wax yow tam si nga boox ak saa yi film bi mooy si la boox du coup li ma koy li ma koy du ma ni conseil sax mais lu ma koy yokku la rek mu gën a xam fi muy taxawee xam ni ko responsabilité la yor tam nga jabar du du du du kii quoi du téléphone donc euh, il faut que nga toppatoo ko am loo ko yore yor ko. donc yërëm ko donc euh, di ko di ko di ko di ko jëlal yenn affaire parce que jigéen xam nañ ko dafa dafa dafa kii quoi xelam daa sëgg comme ni ni wenn sëggee comme ni ko gars yi di waxee donc li ko gën a yokk rek muy gën a muñ gën a jàppale jabaram jabaram tamit jàppale ko taxaw ko te xam ne milieu bi dafa nekk milieu boo xamante ne dafa doy waar boo comprendre sa jëkkër si yenn yi rek da am problème ak moom donc ñu gën a comprendre donc euh, voilà jàppalante daal alors day si série bi nga xam ne fu mu toll nii mën nañu wax ni moo gën a nekk en vogue fii ci Sénégal Sénégal yëpp moom la ñuy suivre fu mu toll nii sa dugg si